loxo caaka loxo caaka loxo caaka sidi nuyu ma sidi nuyu ma ku si gën a bëgg yéen ne fi tasul loxo caaka yebbi xool yebbi xool sida sida saxi ku bëgg Sayduna Muhammad yekkatil sa loxo

حسنك جلك وأبا وغيا برا kon nag maa ngi koy yemale fii ah kon ah, gisuma Tidiane ci tànt bi di ah, ci tànt ana Tidiane ana Tidiane baay alaaji suleymaan jóob tiijaan la ana taalibe cheikh yi ana ñi fi gën a bëgg cheikh seydi ahmed ak tiijaan yi jóg leen taxaw nu màggal borom tariixa bi danaa wax ci sama wax yi naan danaa wax ci sama wax yi naan koo gis mu rafet sa lu rafet xeeñ lu neex jaba leer mu yaru yeewu yaatu yiw ni te nandi te naayis neex nit ñi neex a nekkal set solution charmante doon jege bëri féem dal te ndaanaane boo koy woone ko taalibe cheikh bi ana ñi bëgg Cheikh Sidi Ahmed El Tidiane ni ñëpp mu jóg taxaw ni ma man la mais képp amul Tidiane خدم جل الورى فيما يقرب من حضرة الدول الله حضرة الدين حضرة الدين حضرة الدين xam nga lan moo nar a nekk surprise jàng yi Moustapha Seck bi mu dee jàng yi Maam Borom Touba rek la jàng ñibbi man Al saam nag su ma jugee tiwaawan dana jaar touba begal mouride ci qasida mam borom tuuba delluwaat tiwaawan doog a ñibbi ana ñi bëgg serigne babakar babakar khamo wa ala sari ma kafaroo saari ma kafaroo siidi sa wi زمرة خلا بران مدارس لله وامتلوا مدارس الكفر يا ذاق الدين يا سيدي الدين يا سيدي مدارس الكفر يا ذاق الدين يا سيدي يا رسول الله يا وزيري يا رسول الله يا وزيري يا من نحى روضك العافون من هممي العافون من يا من نحى روضك العافون يا من سرى يا من سرى للحريم ركب من نفق للحريم ركب من نفق ومن بلاد شطار ومن بلاد شطار لفضل ana soppay sayduna muhammad na ñëpp def nii inna ataynaaka adiyaafan nuridu xiran wa dayfu di karamin wal juudu zul xarami wal juudu zul xarami wal juudu zul xarami wa inna بفضلك يا مختار في القدم من يبجوك تخوني مكة محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله خير ضيوف ضيوف الله من حرم الله من حرم الله من حرم لطيبة زائرين لطيبة زائرين صاحب الكرم صاحب الكرم صاحب damay laaj ndax tànt bi am nañu bëgg a ziyaare ji nekk fii albaqi fii albaqi wa xayru turbatin du fi nat wa xayru turbatin du fi nat fiyaa idaamu abibillahi dil idami فيا على شرفا إذ كان مسكن مسكنها يا أهلها مجدب يا أهلها مجدب ستم الأكوان في شرف الأكوان في شرف وفي الجوار وفي القربى وفي الزمم وفي الزمم كفي تسيال من كزيارة كفي تسيال من كزيارة كفي تسيال من كزيارة فيا لا شرفا فيا شرفا شرفا شرفا شرفا شرفا شرفا شرفا شرفا شرفا شرفا فيالا شرفا سيدنا محمد بك سيدنا واي فيا لها شرف يا لها شرف يا لها شرف يا لها شرف شرفا فيا لها كان مسكن فيها ومتن وفي ذلك الحرمي ñu bëgg yenent bi ana ñu bëgg yenent bi tuuba liman xajja baytallahi mu'tamiran وزائرا بعد روضة سيد الأمم سيد الأمم سيد الأمم نفسي ومالي ومالي وروحي قد فديت بها لساكن روضة المحمود بشيم حمدي وشكري دوام للمسهل لي للمسهل لي raw ziyaarati rawdatal maxfuufi bi niami xam nga ay jamono buy dox dangay dox ànd ak moom ndaw ñi fi nekk te bëgg yenent bi air yi fi mag ñi indi woon dañ ko soppi benn bu ci nekk way wane ñu wutal ko air bu tollook jamono waaye dara du ci génn sunna li ma bëgg a way na dama bëgg bu ma ko tàmbala ba keroog muy jeex ngeen di fi tasu waa ceeb ngeen di fi tasu ñaar rek laa santaane ci jàng yi fitasu saraxe saraxe fitasu fitasu saraxe saraxe fitasu fitasu saraxe ku mënul fitasu saraxeel ku mënul saraxe fitasul ku mënul ñaar yëpp demal tëddi dama bëgg ngeen fitasu ba wàtti waawoon di leen dégg ma wayal si di sono wayam wi samuy wural من نفسي ومالي شيخنا أيوة فيا خوف ما ما عن الموت ساعة bu leen bàyyi fit te su leen biraat fit te seen tijaan waa for jox ceeb fu ñoo ay ceeb fu ñoo ay waaw waaw waaw boorootee sandaa def ci ceeb ma way naaree jiddaal wàcce walaylin jiddaal jiddaal jiddaal wa hawli yaa alaa misli alaa misli waaw waaw ku bëgg yeneen bi fi tasul bëgg yeneen bi si kaso buurul layaali bi soppay sëñ Saaliw Mbàkke loxo càkka loxo càkka loxo càkka loxo càkka sidi nuyu ma sidi nuyu ma ku si gën a bëgg yeneen fi tasu loxo càkka yebbi xool yebbi xool yebbi صحيح ku bëgg Seydina Muhammad yëkkatil sa loxo في القعدة في القعدة حجرة تلك حجرة تلك حجرة تلك bu ngeen deful nii rek ma bàyyi bu ngeen deful nii rek ma bàyyi ku ci def nii yàlla boo gis loo ragal gis loo ragal Anaknya pakai sering babakar ñi bëgg sëriñ wa abba wa oh, mira oh, oh, mira

دي خلي دي خلي لا إله إلا الله وإبليس سكينة سكينة فكيف تيا سيما بكر سيما سور دندل تيور دندل تيور

suma pare wayal leen Cheikhuna Tidiane waaw Tidiane Cheikhuna Tidiane Cheikhuna Tidiane waaw ku si gën a bëgg sëñ Babacar jógal Babacar shababi ya firab ya yàlla na nga wér Baba yàlla na nga wér ente moo ente moo تمر منون دبا وابورتي وابورتي وابورتي وابورتي خنا خنا خنا خنا بغلين ينبتين بوربي بوربي لا قوم من جل من جل نغير شبابي يسير رابب شبابي يسير رابب غورغي يالا نغير بابا غورغي يالا نغير بابا انت مرا يالا نغير منون دبا ku jóg taxaw yàlla na nga wér dëgg dëgg dëgg ñu dem dëgg la dëgg la tant bi def leen ni ñu magal yàlla sababi ya fi rob ya fi rob ya fi rob sinu góor gi yàlla na gudd fan góor gi yàlla na gudd fan papa intamul mënoon bi baax sama yitte mooy di la ñaan dëkkuttu fa dëkkuttu Sëriñ Babacar Si Mansoor dundal nga weer dundal nga dundal nga weer baay nga ne maam bi tant bi def leen nii ñu màggal waa cëpp ñoo aaye tey dëgg dëgg yi lay wayal cëpp waa cëpp ñoo aaye tey ana waa cépp seen loxo ara ub magal bi aset jo aset fa njasta tant bi jóg leen taxaw ñu magal yàlla ñu magal yàlla ñu magal yàlla magam magam adim mawaa loxo ca kaw fitta su leen loxo ca kaw fitta su leen waa for jox ñëw nanu waa for jox ñëw nanu waa kebe meer ñëw nanu waa kebe meer digg nanu waa cepp ñoo aayate aayate ak na ñi bëgg ya nen ci di loxo loxo ca kaw ay aadal jalaali def leen ni wanaa dal jamaal jamaal هذا المعالي عليك دكا loxo ca kaw loxo ca kaw ay jëpp ñoo aaye tey ji ay jëpp ñoo aaye tey Arden TV leeru diine ci Arden TV leeru diine